رجب ليل العروبة حل لا در في رجب ثم المنى دي ينادي مسميع الفهم الله في رجب منادي ينادي مسميع المهدى مالنا لولا العروبة حل لا ضر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم ليل العروبة حلت الضر في رجب في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تبارك الله لا فرد فوكم ولا زلت عيدكم xalifa ñu ngi laa nuyu si di ñaan borom bi tëlewul dara mu dole laa dëgëral بحرمة سيد الوجود وعلم الشهود kaar sunu xel yàlla dalal na waxuma dal na waaye yàlla mi dalal dalal na sunu xel ba tax na fu nu toll kaar ci sori ak jege ñu ngi wéttiliku ànd ak xel mu dal lool ci yow bismillaahi ñu waxati ci ndigalam yàlla na yàgg béyte bii xale yi woy léegi sunu góor gu baax gi di sunu yaakaar te ak ëllëg Maulana Sidi Hadj Malick radiyallahu taala anhu daf ko takraaru ñaari yoon ci xilaas bi xaruba mooy ajjuma arab yi guddi ajuma ajuma arobatu lañ ko tudde woon islam moo ñëw tudde ko yowmul jumaa góor gi wax na ci biir ba ñuy dugg midinatul munawwara ne yowmal jàllal foofa yowma la jàlla la def ab lonk gi daf ko tomb ci suuf fii léy la def ne àlla dindi tomb kooku dafa mat a jéex yow ma aruba jàllal badru fii mu ne leylal arubati àllal badru jàlla mooy firi départ si daaj maa li luxa bu mu indi demu sax ci sooraaw demul sax ci lisaanul arab moy li ëpp ci loxoy xila zabbi alquran la ولولا أن كتب الله عليهم جلاء لأذابهم في الدنيا والآخرة سورة العشر dar bàyyilul nag Moustapha dara wax naa sànq su fekkee di ngay faral di yër ñi bind ci Moustapha yàlla dimbali la nga yër téere bii Benen bo yërëti da ci gis lu seddu soxol mu ngi wax jamono bi ñu jëlee leer gi ci mujjug dénkaaneen jox ko kiñ ko mujjee dénk pour mu jébbal ko seeni borom mooy waa adina kookaay kan abdoulaye kookaay kan soxna amina weer wi mu amee Maodo da la koy wax wax laa bés bi mu wax fi mu te nee naa ñi bari ci ñi taalif dañu coppati ci ne bi aslëf ñii leer gi la wax bi mu laate jeex ñu yokkat mbaa li ñu xam jeex ñuy wax juddu bi bi mu laate jeex ñu yokkat mbaa li ñu xam jeex ñuy wax nubuwa gi bi mu laata jeex ñu yokkat mbaa ñu xam jeex ñii wax gàddaay gi noonu ñii wax xeex yi noonu ñii wax doom yi ak soxna yi noonu Siraaj Malik moo ko dale ci wa innahu is aradallahu nasatana abaana min nuuri bàyyu ko bàyyu ko bàyyu ko ba ne ba ne wabnal amaama rasal xabru yabdau min wijaati raxsi soo darami diggante fële mu ak fii mu teere ne wabnal amaama man lu nekk ci fii ñu départ nag sëriñ bi sant ni ñu départ tey moo dëppoog guddi gi Maodo da boo gisee bu amee ku la laaj tontu ko tontu loo du laaj doolu ragal ku la diiŋat nee ko li loolu awra bëtig guddik ajjuma ñu ne waaw si mu ne àlla ca la ñu jébbalee ba mu cëppeelu albadru leeru Mustapha guddi gi la wax ñu ne wanweer weer mu ne fi rajo bi jamono si añ maa Maalik ne na ah, jamono bi nga xamee ne toxal nañu leeru sayyidil wujuudi wa alimi suudi ci mujjug dencam am na lu rëy lu xew lu ma umpul xew ci asmaan yi juróom ci suuf yi juróom-ñaar xew ci bàyyi mayi xew ci nit ñi xew ci jamaat daat xew ci aj maawaat dina ko tegtale nag ci juróomi wooy balaa juróomi wooy yay jeex ca saasa umma ca saasa ca saasa ba ñu fabee leer gi jébbale ko la ñu dégg kuy wax xaatif bu ñu gisul jëmmam muy wax ci asamaan yu juróom-ñaar lu mu doon wax talmiinul bayti la waaw kañ lu mu doon wax تنبأوا أن نور الختم الخد ليلكما قد حل في خيمة من أظهر الخيام تنبهوا أن نور الختم ليلكما قد حل في خيمة من أثار الخيام واو واو واو ثم المنادي ينادي مولى مالنا تنبهوا أن نور الختم ليلكما قد حال في خيمة من أظهر الخيام تنبهوا ñu ne lu xew ñu ne ana nooral xat mi lay la kumoo xat xàlla wala ana nooral xat mi xat xàlla la kumoo jóg leen wàcc leen lal yi yeewu leen dàq leen nelaw yi lu xew ñu ne leer gi nga xam ne ci la yàlla bindi lu mu bind ci la yàlla yërëmi ku mu yërëm jébbale nañ ko guddi tey kon wàcc leen lal yi te yeewu Sida yi Malick ne dafa mel ni dañu laaj ñi ñu doon yee dañuy tëdd ba digg guddi ñu yeewu di xoolante rekk jëme ëllëg mu ne déedéet am na lu ñu sant am na service bu ñu santaane keroog bi leet bi duggee service bu umpuma ñu ne Maodo lan la mu ne lan ah عطيرا باخرا خير البخور وأفواه أن عطيرا باخرا خير البخور وأفرش سجاه ذات تكريما على القدمين باخرا خير البغور وأفرش ساجا ذات تكريما على القدم ليل العروبة التي حل في رجب في رجب منادي ينادي مسميع الفهم يا ولين يا ولين نلو جيخنا نلو ورنا جيخ ليرو تشان جي جبل نينكو تاي كوماس لين بريباراتيرو كو بولين ياو نك دي خول ان اتيرو غير بخور وافلسوا خير سجادات ديفلم كو تكريما على الغضو مي yeewu leen li kole yi ngeen dencoon yi ci dàqoon aw yi ngeen daan taal yi ci dàqoon na ngeen yeewu taal cuuraay yooya sàññi li kole yooya yemuma ci loolu kat waaye darab yi indi woon ci lay yépp nañ ko ñori roof ci yeneen ci min wi yu jëm fajar xatiru xayra buxuur waa afriso sajaadaata def leen ko taqriman ngir dolli teraanga alal xusum yi ci doom yu ba jàmm si daa ji mari ne loolooy wàllu nit ñi waaye am na lu xew ca asamaan yu juróom-ñaar ci même guddi gi même service ñu ne boobaay ban ak loolaay lan mu ne lan الملائك أبواب السماء فتحت قال الملائك أبواب وأبو السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العظام عود مالنا قال الملائك أب واب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العظام المناطح لا در في رجبه ثم المنادي ينادي مسمع الهدى مالنا قال الملائك أب واب السماء فتحا كذا الجنان ونور الشمس في العظام قال الملائك أبواب السماء فتحت su fekkee waa suuf ñu ngi leen di sant an atiru ak it baxiru xayral buxuur terewul am na lu xew ci asmaani juróom-ñaar ngir leeru Mustapha gi allahu nuuru samawati wal ard masala nuurihi ka mishkat فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري leer yi ci dënn jullit mooy leer yi yàlla feeñal ci zahir ñuy bax tudd bii liimaan bii lislaam bii bii azan ci ëllëtu suuf ñoom lislaam la jiital sharia liimaan lañuy jiital waaye leer yi nga xam ne moom la won mu jàkkaarloog yooyu ci dënn nit ñi mooy jant bi weer wi biddiw yi jant bi weer wi biddiw yi islaan liimaan ixsaan ne nañu jaaxle nañu ndax bunti asamaan yépp mosula ubbeeku sun borom doxoo na ca xaddiim ñaar yoon lañ ko ubbi tëj ko benn bu ganek àddinaam sama sama soppe bi benn bi ubbil ko ko pour mu gane si si ji Malik ne yow mi bëgg a xam ne bi te maa la noonu yaa xaysal bari li ashdaaf bu traversé ti géej gi indie sama dënn bi boo ma ci dégloo daratum am na façon nga xam ne maami nabi yoo xam ni bi haa nekk na ci biir xam-xam boo ma déggeeloo duratun aw farafancin woo xam ne ala moo gën a leer minal jële bi ci dënn sëriñ si gis daañ la déglu mun a dinaa wax daañ la déglu mun a soxla moo weexal soxla uma neexal waaw guddi gi ñu fabee leer gi mu war a ñëw nag ci alimul naashi ñu di ko wax mu jëba mul alimul mulki lu xew mu ne ci kaw suuf ñu ne waaw mu ne dañuy yéene na ne ñépp yeew bu kenn nelawati nañ taal cuuraay yi dàq ci cuuraay yi nañ ubbi li koleñ yi te lalaat darab yu bees yi yi indi woon ci lal yi nañ ko lalli sa jaade woon ci der yi nañ ko lalli looloo xew ci suuf waaye kat malaayika yi ñoom it nañu booba sama yëpp futti at ak lan kasa jinaanu bunte àjjana yëpp ubbi nañ leen ma di la yëgal ne wanooru shamsi fil idami ki taxoon ñuy niit mu ngi bëgg a ñëw nañ ko yokk leer jant bi yokk nañ ko kër ak juróom-ñaar fukki junne dégare leer ngir dikku Moustapha waaw góor solaat waaw euh, kon nag euh, sëriñ bi kaar xërëm ak turu yàlla di léppam maag Maodo sax waxtaan noonu ñoo namutati Mansour Mbaye ci yërëm ko mu bañ mu bañ a ñëw ak coono tey bi waaye nag gaa yi la ma leen waxoon waat naa ci màggu yàlla ak baaxaayam ak suturaam gis yiñ ko gis ci heure bi rek doy nañu Maodo heure bi mu ñëw nu gis ko rek teg ko bët doy nañu ak defaru ci ko wóoru kon nag nu may ko mu sànnanteeg ñun ay baat mu jiyee Moustapha delloo ji ko kaar mu noppalu ko yàlla na ko fi yàlla doole yàggal lu ëpp li mu سنة من لولا ما برزت شمس النهر ولا بدر ولا

المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وخلفائه وأصحابه الغر الميامين ورضي الله عن ابنه وخليفته وأمينه ووارث سره صاحب الفيوض صاحب الفيوضات الربانيه والفتوحات الإلهية سيدنا وشيخنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وعن آله وخلفائه ومقدميه وعن عبده وخديمه ومريده شيخنا الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وعن آله وأزواجه الطاهرات المطهرات أم المؤمنين وأبنائه وبناته وأشياخه جدنا الفاهم ما يرف وشيخنا وشيخ شيوخنا وجدنا أبي حفص الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه الطوري القدبي وعن سيدنا وشيخ شيوخنا أبي الفتوحات والبركات والمعالي الشيخ محمد الغالي رضي الله تعالى عنه وعن شيخنا ومولانا علي العباسي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعنا به وبجده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضا لا سخط ولا ترد ولا سلب بعده بمحبته وجوده وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة di nuyu alxaaji Ibou Sakho te di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla. nii mi ngi nuyu bu baax alxaaji Ibou Sakho te di ko sant bu baax. zaada allahu ilman wa fahman wa faydan

ولهذه الطريقة بصفة ولأهل الشيخ الحاج مالك بصفة خاصة يلا ما كل قد كي تخوى الإسلام بباخ أك تاريخ بي أك جلتي يب أك سنة كي درجة الحاج مالك رضي الله تعالى عنه أك جواتا بكامل الصحة والسلامة والعافية وبلوغ الأمانة مباركينك

بجاه سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيان دوغال يالا كو يالا ماتال كي ييب دارجون سي يالا محمد صلى الله عليه وسلم بوك يي في داجي ييب ني وا جمعيه بي اك وا اك دوائر يي اك مولم بوك يي في داجي ذكورا واناثا صغارا وكبارا اسلم عليكم وازوركم ني بوك في داجي ييب جمعيه بي دايري مولم ييب góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñépp mu leen di jotal nuyoom ak ziara di yeesalit ko gi nga xam ne moo doxoon ci suñu diggantey waajur seeni waajur ak seen baay seen maam Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu di nga xam ne bii moo doxoon diggante wajur seeni wajur seen maam Seydi Xayma radiyallahu anhu boobu la coloré ñu ko yeesati ñëpp ak boppam. ñu ànd ak moom ci weewu melo muy wàllu ngor ak diine képp ak di liggéeyal yàlla. di liggéeyal nag yàlla. ca ñi mu bokkaloon adduna bi te bokkuñu tarixa ñooñu it ñu nga doon liggéeyal yàlla ña mu bokkaloon adduna bi te bokkuñu tarixa ñooñu it ñu nga doon liggéeyal yàlla ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu àndoon ak moom bokk ak moom tarixa it ànd ak moom ci bëgg boobu liggéey ñu di ko jàppale mu di leen jàppale ñi àndoon ak moom nag ci tarixa bi te bëgg boobu liggéey mu ànd ak moom mu di leen jàppale ñoom it di ko jàppale ci boobu liggéey ila an laqiya allah subhanahu ne loolu nag moo sax dàq ci ñoom mel ci ñoom ba ñu daj seen bon tabaraka taala wa taraka al umur bi yadi khalifatihi wa ibnihi al abi siddiq wa سيدنا ابي بكر الصديق وسنبه الحاج احمد المنصور رضي الله عنه نيبه منبر مومولا مجد تك في الحسين ابو بكر سي خليفه رضي الله taala ak اك ma سيد الحاج منصور رضي الله تعالى عنه di ci liggéey ba mu soob yàlla mu jële leen fi ci liggéey nag ñoom it woo melo ba mu soob yàlla mu jële leen fi ñun ñii maag ak yéen ñépp mu bokk ñu jaboote ngir moomu nekk ci suñu ñu di ko doxante nee moom mi toog ak ñun ñooñu moom nekk ci seen loxo ñu di ko doxalante nañ ko daan doxale kon nag lépp lu ñu jëf seen gannaaw yal na ko yàlla yéegal ci seen jëf kon nag lépp lu ñu jëf seen gannaaw yàlla ko yàlla yéegal ci seen jëf yi ñu ngi yaakaar ne yàlla dana ko nangu ndax moo ko fabal moo ko fabal boppam ne yaakaar ne incha allah yàlla dana ko ci yéegal ndax yàlla lu ko fabalal boppam bismillahi rahmani rahim waxuma ne kat nangam dama ne damay bëgg a nettali wax yàlla bi ñaar waaye bu kenn dem ne abduna suñu jëf déedéet wax yàlla la bëgg a nettali ni muy tërale waxam it lépp lu wax mu ko teg ci wax suñu borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wasallam suma ko waxe ba noppi maag yeen ñep nañu andandoo wax ne yàlla yàlla nangu aaya bile yàlla na ngeen diri mbiccam ci suñu kaw nee su ko waxe ba noppi moom ak ñun ñëpp nana bokk wax ne aay bii mu jàng yàlla diri mbiccam ci suñu kaw ñun ñëpp والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء walladina gaa ñi nga xam ne aamanu gëm nañu yàlla imaanan am gëm kaamilan bu di mag bu di aji mag ci bitti ak ci biir ak suñu wéeteeg suñu wéttalikoo suñu dee nelaw suñu yeewoo suñu yëgoo suñu dalee ne loolu bu mag ci biir ak ci biir suñu wéetee ak suñu wéttalikoo bu ñu nelawee ak suñu nelawul yépp wattabaatuhum te roy leen ca loola wattabaatuhum te topp seeni tànk durriyatuhum bi imaanin naqisin ci gëm ngoo xam ne minimum la ci seen gëmu maam ya yàlla ne damay fab lépp jaxase ko ni peñ bu ñu seeñe seet ci ndox wala ndox mu ñu sotti ci kaw peñ ak ñi nga xam ni topp nañu leen ci melu gëm yàlla yi ci seen gëm yàlla ga matul ni gëm yàlla yi mag nee suñu borom ne dama yëkkati seen gëm gu mat mat mat bi googu la yéegal ko ci gëm yu mat ya ci wajure nangul leen li tax ma firé ko noonu ne li tax mu firé ko noonu li yakuna sahlan ma'khad wal fahm ne ngir le ñu mu neex a dégg ci nu ñu dégg ko déggin wax xam ne daan ko mën a dégg dégg bu rafet waye defe naa danañ ko wara gëm ndax amna caisse gu gouvernement bi sak ñu di ko tuddé xaw ma nu mu tudd man dégguma tuwa ne war nañ ko mën gëm ndax gouvernement bi amna caisse kees gu ñu sàkk goo xam ne gii dañ koo def waaye soriwul fi Assane Mbaye di liggéey Assane Samb di liggéey. nee waaye. la ndax. nee de familial. waaw ndax ay gone du ñu fay seeni i wajur te fekk ñoom ba léegi demuñu école. liggéey du gouvernement bi tuuti. yoo xam ñu ngi leen di fay te demaguñu école sax waxuma laa liggéey. xanaa da ngeen ko war gëm kon. nee loolu war ngeen ko gëmit suñu borom tabaaraka taala ndagam ñu yaa addinaa mel ni asima yàlla. ndax lu ñu lépp lu ñu tudde nguur. ndax lépp lu ñu tudde nguur. yàlla nga ko fabe ci nguuram terale ko doomu aadama yi bi barakati Seydina Muhammad. yàlla nga ko fabe ci nguuram ba terale ko doomu aadama ci barkeet yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaye zahir rek la leen ci jox. waaye nag zahir bi rek la leen jox buur dëgg dëgg. nee buur dëgg dëgg. du rentré hôpital. du rentré hôpital. du dem cabine. du dem cabine. du xiif. du xiif du du ngel du nelaw. du nelaw du gëmmeen. du gëmmeen. kooku nag du kenn illa allah. kooku nag du kenn ku sunu borom tabaraka taala. الله سبحانه وتعالى هو المستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله سبحانه وتعالى doylu te riif walis yëpp walis doylu walis yëpp amul kenn ku doylu mbaa nga riis dul yaa ngi yaakaar ci loolu wa taala ku moom rek bi soxla nga aaju nga jëm ci moom moom aajuwul jëm ci kenn kenn ku nekk soo tëlee yaa ngi naan ma dem ci Mansour jox ndax mu jox ma dépense ne kenn ku ne maa ngi naan ma de kii ji daal ñu ne def ci ma banque maa ngi ci Mansour ji ndax mu jox ma dépense waaye yàlla moom demul ci kenn yàlla moom du dem ci kenn maa ngi dem ca docteur Moustapha Saw ndax mu faj maa ngi dem ci docteur Moustapha Saw ndax mu saw ndax mu faj maa ngi dem ci Assane Samb ndax mu lebal ma nangam maa ngi dem ci Assane Samb ndax mu lebal ma nangam maa ngi dem ci Mansour Mbaye wax ci rajo bi ndax mu waxal ma ñu dégg maa ngi dem ca Mansour Mbaye wax ci rajo bi ndax mu waxal ma ñu dégg li nga wax man منصور مباي نيل لي وخ منصور مباي اب لي منصور نيتال اي منصور نيتال بي راديو بي لاتا بي راديو بي لاتا بي ادونا لاتا تاو بي ادونا لاتا تاو بي لاتا ام بي نيت لاتا كان ذلك في علم الله يوي ييب نيك خامت مو يالا ديك لي ييب بام لاتا مو توك بامو سوب ني مو توك بامو سوب مو دور كو مو دور كو واك فوندما ييب ني فوندما ييب ماغا تي ديم ماغا تي ديم لوغيس لوغيس تاي لوغيس تاي فك نا فوندوان كو ديم فك فوندوان كو ديم واي اراده الله mingi ngi door am pour lolu taxaw ak machi am waaye qudra ba rob na ko yalla yem nam nam man suñu borom ak coobareem mi ngi door am waaye nam ak nam la waaye fekk dogal am na démb kon nak kon nak setal yonent bi numu day ne setal yonent yàlla muhammad ak numu day xamal ne mii mi ya bok na ci as asbab yi tax seyd alxaji maa ngi def ko yër bu mu di yon yër qurratul absar ne mii mi bok na ci sawi seyd alxaji maa ngi def ko yow doo yéen teewutul waratul absaar am ca daal loo xam ne lii xëj na am ca loo xam ne daal ca dëgg dëgg dëgg leeru na mu war a leer mu far na naa ko liggéey rek mu ne ko nag naa ko far liggéey rek man Cerno Saidu Nuur radiallahu anhuma nee na Seydi El Hadj Malick nee na ko miimiya ci ñaar fukki fan laa ko defar nee na Cerno Saidu Nuur radiallahu anhu nee na ko miimiya kat li muy bari bari bari yëpp ci ak xam ko yëpp dir ñaar fukki laa ko liggéey sañ ngeen dogu ne ne sañ ngeen a dogu ne

yal nañ ko yàlla fayal ak bokkam yi fi nekkoon. yàlla na ko yàlla fayal ak bokkam yi fi nekkoon. dana war a ñaaw sax ci man. ne kon dana war ñaaw.